kon Pikine ñoo xew la drapeau Pikine la ñu soxla. mais bu leen noonu bu leen bàtte bi. waaw mais bu dee rëgg bi. feebar kii feebar nga ko jël feebar. mais mais mais li. bul wax loolu Zal. ah avant feebar ah, feebar bi noo ma ni dafa feebar am certificat médical. Ama Baldé ci boobu moo def déclaration daal ni na Boy Niang dem bëri ji ak Modou Lo man ma xaar. dem ànd moo def déclaration Mhm. am na ñoo xam ne ci écurie ba lañ nekk. mais Ama Baldé loolu la a wax li li Abdou Bakhoum di wax. mais mais non déglu ma Père Bourkhane di ak ñoom lañ wax ànd. Père Bourkhane Wade Père loolu la mën a wax ci digganteem ak a wax li mu wax la ñu wax. waaw mais li wax mais li wax bu li mu wax bu. yow bul wax lu li mu wax la ñu wax. waaw est-ce que xam moo ko moom moo moom Pikine de ma ne Ama Baldé moom moom Pikine. ay borom Pikine ah non non moom moom Pikine. et Bourkhane Bourkhane déglu leen ba dafa am koo xamante ne nii mi ngi ci plateau bi tey Ama Baldé et eh, déglu waaj Bourkhane déglu yow tam dafa am ku nekk ci plateau bi te ñaari combat yëpp mi ngi ci muy baaxum nii ma nga woon ci Modou Lo Ama mm. tey jii it mi ngi ci rëg-rëg Ama waaw ci ñëw est-ce que du fayu du revanche bu waa écurie Falaye Bal day jël ci kaw waa écurie Boy Niang jërëjëf Bécaye maa ngi nuyu baax wax dëgg yàlla maa ngi nuyu parce que vraiment waxtaan wi xumb na te déglu gi sax dafa mel ni moo xam a ndax damaa dégg sax ci ci <laughs> ménage yeeg waaw mbër yeeg nangam mais man sama écrit man dem naa ba nekk président bi Matar Ndiaye mi xam na ci dara dem naa nekkoon entraîneur yore Baboye ak Pape amul lenn lu ñuy def même simb sax ñu ko daan def amul lenn lu ñu ciy def te dama ko fekkee kon am na yoo xam ne yi samay avancement la ci loolu ba may taal oto di jëli mbëri parcelle. Mhm. di leen yóbbu làmb boobu mbëru parcelle bu bu takk ngemb amul amul oto. Mhm. may jóge fii di leen fekk parcelle di leen yóbbu làmb. Mhm. combat bi indi coow li comme ni ko Baye Balla ndax Baye Balla rek la ñuy wax. moom Baye Balla la tudd. Baye Balla. sama maam lañ ko tuddee moo tax ñu lay Baye Balla. waaw baax na waaw sama sama sunu maam la <laughs> donc ci bande bi nga xam ne ñun la ñu gis mooy. Uh-huh. day combat boo xam ne dañ ko récalé tant deux un an deux trois ans quatre ans cinq ans bay dugg sixième année mu ne këtt na jon ba promoteur bi naa leen yow lan moo tax mënoo jàkkaarloo lu ñu def ci jàkkaarloo mu évadé yàqu. ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ak Ama mu am dégg ko jam nag mu am ko mu ko tàll mu sekkil ko ko. <laughs> muy kan ci diggante il faut mu dugg biir Pikine comme ni ko Sawa Diagne jëm a percé. percé ci communication. waaw percé bi ñu percé mooy il faut mu jéem a lokki ci benn côté taxaw daw làqu. daw làqu mm. bataille psychologique mais foofu itam boo ñaa mën na ko jël. mën na ko la ba doon wax démb ak bërki démb mën na ko jël mën na ko bañ a lan moo la ci ah, gënal mën na ko bañ a jël nga daan wax lan moo la ci gënal man wax lii ma wax léegi lan moo la ci gënal lan moo la ci gënaloon yow non man bu ma sañoon day bàyyi ba mu bëri ba pare moo gën sax damay bàyyi mu bëri rek am ak. mu bàyyi mu bë ah. waaw. Ah. mais mais loolu ah, am na mais bu xam war na madro laaj. ok <laughs> léegi lan moo la léegi baaxul yow lan moo la ci gën a yow. dañ koo dund ba weesu ko. Eh, léegi léegi wax eh, dama xam ne li nga dund ba weesu ko dañ koy delluwaat. rek rek ngeen di wax léegi. dama ne li nga dund ba weesu dañ koy delluwaat. mais da ngaa jël Modou Lo jël ci jël ki daan Modou Lo mii rek dafa feebaroon non eh, bu xoolal bu sant victoire jàmbur non non doo sant victoire jàmbur ah. non non non non non non wuy ma wuy ma wuy ma la ko laaj ñun ñii lañ koy laaj yow dëkkoo Pikine yaa ngi dégg yoroo ci ñaari mbër bon léegi man li may laaj li li nga xam ne bu xarwaat bu ko dégg Bougane Wade man li may laaj Abdou Bakhoum waaw li ma la da ngeen da ngeen a jël koo xam ne nii dangeen a jël koo xam ne nii da a jël espoir boo xam ne nii li leen daloon ci Modou Lo ak lu làmb yëpp dañuy ragal mu dal leen ci Reug Reug ndax espoir bi ngeen jël day xale boo xam ne nii Modou Lo mi dugg Pikine daan leen Reug Reug moo daan ki ko daan mi Serigne Bombardier barki dem moo jaay ngeen jël Reug Reug tey jii lan mooy solo wu biir pikin tey jii ndax tey jii Ama de ñëpp yaakaaruñu na ne dina jël Reug Reug ci kaw Boy Niang mi ko jël benn fayu la wala lan moo tax wala ban étranger nga jël ko. du fayu ba nga jiyee ba ko kenn daal wuti xaalis comme ñëpp rek. waaw ah, bul ñëw ci bu bëri ñëwal ma ci dafa war a dem bëri ak Reug Reug. yaa ngi dégg ah, non doo affaire fayu de xoolal kii mun na ma mun na ma teede. Ama Baldé ak Boy Niang dañoo bëri Mbappar ñu ñëw toog si fekk leen ci mbappat ni leen yéen dootu leen bëreeti ci àdduna. mais mais million mën na loolu de te man naa. waaw ba non non ñoom ñaar mën eh, adversaire. rek la ñuy bokk. burxaan fa la wax di ah, loolu a wax lan doon laaj. mais yéen ngeen ci dugg mais baaxum. non non kii moom moo toog affaire bi baaxum ca combat bu njëkk ba. moo ko doon man xamoon naa kii eh, li muy def burxaan déglu ma ca combat bu njëkk ba ba <laughs> booy ñaa jëlee Modou Lo baaxum mais il était contre. tey jii baaxum léegi tey jii baaxum jël na rëg rëg te il n'est pas contre. mais Bécaye léegi bàyyi leen baaxum tool. Bécaye waaw. yow da maa gis ba signé bëgg rëg rëg. ah yow doo. non donc ah, ah, ah mi ngi a ah, leer. kenn demal waar nga seet ci fa site bi wala nga dugg fu la neex yow da maa gis ma signé rëg rëg. kan moo signé Ama Balde. ku signé Ama. Ama Balde kan moo signé nañu ko. Ama Reug ku ko hmm. signal. man de jot naa ci information boo xam ne ci Ama Baldé man moo ma ko wax. kaay ah, lii may wax nii Ama Baldé ma ko wax. non Fadam kii li information boo am maa ko laaj tey. Ah? maa ko woo bi combat bi taxawee. man maa woo sama bopp Ama Baldé na ko da ngay bëri rek mën a pour teeg ma bëri moom lan moo tax. Ah, Ama Baldé ma ko wax a wax. mais ko. Ah, Ama Baldé nangu ah signé nañ ko. mais kan moo signé ah man de gis naa ñaari contrat. donc bu Paa la ah, nga gis man dama lay xamal mooy leen. ah combat bi mu taxawoon moom ak Siteu man maa ko signé moom ak Gris Bordeaux maa ko signé te ñaanatu yàlla man ñaanatuma yàlla muy signé lenn te du ma ko signé te man signé gu ma kenn. te signé ko waaw kon Paa la moo signé. Paa la moo signé. jàpp naa loolu ah, ah mais c'est man man ko gis tey ci fànn laa ko gis xam lu mu wax ci loolu Baye Ndiaye ah, non ñoom nan woote Baye Ndiaye mën na woote la Baye Ndiaye woote ñoom su fekkee ñu ngi suivre émission bi non ñoom d'habitude ñu ngi suivre bi ñu ngi koy suivre waaw ñoom ñu ngi koy suivre émission bi mooy ñëpp kuy dëggu làmb mu signé man maa ko gis tey ci groupe manager yi Burkhane bi dama dégg mu ne Reug Reug moo ne damay bëreeg Ama Baldé damay bëreeg Boy Niang moo ko wax dina wax loolu ah, man toog naa ci benn télévision ñu laam laamee Boy Niang day bëreeg Siteu wala day bëreeg Reug Reug wala dootul bëreeg Reug Reug ndax hmm. caakaan Ndiaye nangam nag ma ne leen tey lañ ma foo ñëw ñëpp ma raxas Gris Bordeaux ñoo fekk fa raatal leen ñoom ñaar hmm. waaw kon ci fànn bi nga xam ne bii mais yow bañoo combat bi man am lu ma ciy bañ ko ma ci bañ mais nag bu ñu mel ne combat bi bu fekkee ne mbër ñu en personne dafa bëgg a bëre ak Gris Bordeaux war a bëre Siteu war a bëre Reug Reug Reug Reug na bëgg bëre ñëpp mbër yi bu ne damay bëre ñëpp damay def day bëre Reug Reug dama ko tere. waaw waaw. am déet. ñun la ñu daloon comme buur li mu wax ne la ñu daloon. Mhm. ca combat bay mooy. combat royal lañ doon bëre. war a bëre combat bi tàkk. ci diggante boo xam ne. mais bii promoteur bi ñuy wax. Hmm. promoteur bi mais mais Babacar bàyyi ko mu yeggale waay Babacar waay. combat bi teg ci benn benn benn chemin boo xam ne. Hmm. du man du mi Bécaye ñuy wax sonn na ci keneen na keneen sonn na ci. Hmm. combat boo xam ne bi dañuy ba tribunal. fu mu dugg nañ fa. waaw waaw. mu ne tàkk taxaw. la solution ko réglé teel moom bu dugal. Aziz Ndiaye la solution. moo réglé combat bi waaw. waaw waaw moo ko réglé combat bi ci Bécaye Mbaye xam ne ci dara. combat bi dem na ci fois. lan moo ko waral. ñaari mbër yëpp di feebar ci feebar kee ñëw déclaré li yow sax nga bëgg ma weddi ci loolu. ci loolu la weddi. ah yow yaa ma ne yow yaa yow yaa wax eh, léegi. non dama ne bi ñun ñoo feebar. et eh, pourtant ak Modou ñoo feebar. bi ñu jël avance feebaru ñu. Eh, feebaru ñu ah. moom du ko xaar day jëli booy ñang xaaral rek ñaani waaw ah Burkhane a lii man eh, eh, benn yoon boo xam ne bii Ama dafa am porte la ci maanaam certificat médical diggante Ama Baldé ak Modou diggante am certificat médical. Mm-hmm. waaw certificat médical bi nga xam ne Ama Baldé bu Ama Baldé. ci diggante moom Modou Lo mu am mu amul eh, ci bés. ankay ankay non non non effectivement amul non non. itam bagaay. contre Gris Bordeaux la ama place. comme contre Gris Bordeaux la. li ma la wax kenn mënu ko dindi. la gaañoo almadi bi muy tuus. merci beaucoup. non ca ca ca fecc ma. diggante ba ca fecc ma la gaañoo. fa la fa la feeñee. ñu demaat ba ñu ama ba mel ni ma war a mel. Gris Bordeaux ñu ne dafa faxat ci baaraam xaw ma ci. ci kuddu xaw ma. waaw ah. ne mënatu la bëri. diggante bi wérul bi mu wéree ba war a dellusiwaat ama mu tam amaat ci ndiggam lu metti yaa ma dégg Gris Bordeaux bi bi ama dugalee sanction médicale ca suba sa lendemain ba la mu loolu la xar ci. ab set waaw set tamit daal boo xam ne bii tabaski tabaski la ci. la ko korite loolu laa wax déedéet. da nga ne da nga ne. loolu laa wax. dama ne loolu demee. ma ne mais man ah problème bi mooy. li ah, problème bi moo moom mënatul li ah, may wax ak li wax benn la rek. burxaan Bourkhane moom moo wax loolu Ama Baldé tam moo génn. a mais Bourkhane yooyu du problème bi. dama bëri gi loolu la mën daan leen. loolu am li nga wax dëgg la mu daan leen mën daan leen bi xam nga lan la. rëg Boy Niang Reug Reug. suñ ko sotoon moo gën a yomb de. yow ñu ko sot an kay lii yàlla tuddoon na ne Modou Lo mi suñ ñoom ñaar jubluwoon ci moom mooy gën a yomb booloo nekk benn sur le benn affaire amul kenn ku mm. dañuy def fii émission Père de Gaulle woote fi waaw ne Boy Niang du bëri Reug Reug ma fekk la stade dégg la micro waaw nga ne ma jëluñu combat ba bëriwu nekk Reug Reug lan moo tax lan moo leen motivé ngeen jël combat bi waaw dama ne man damaa ñëw fekkee booy ña war a bëre rëg-rëg jóge fële ñu ànd ak moom fecc te généralement loolu bu amee ñaari bëri bu ñu bëre mm-hmm. man ci loolu laa waxee mais bi rëg-rëg génnee ni moom day bëri ak ñoom mm. demal leen ñun pare nañu kon pour bëre ak moom mais si te bëri ñoom ñoom Ama Baldé ma dàq bëre booy gis nga nag kaay wax la benn affaire bul jëlati waxu dëggal di ko sóor di ma ci sóor parce que man du ñu bokk fu ñuy wax moom am na droit moo jur doomam mu ko lay waxee man am na loo xam ne man moomu ma ko ni may waxee noonu laa war a waxe mbër mi su fekkee ne dafa ne man damay bëreeg booy ñang booy ñang nangu bëreeg du tardé ci man mm. mais suñ nee Siteu ñëw taxaw ni man même bu doon ay millions tamit du ma bëreeg booy ñang mais foofu laay continuer di insister ah, duñu bëreeg Siteu ah, mais lan moo leen may possibilité bëriwul ne xam nga tey lan moo tax ma kontaan ci question yi ngeen ñuy posé bu njëkk ba nit ñi xam nga intox dafa bari biir Pikine booy yi ku ci am seen kër nga jëm te ñoom du ñu toog mukk loo ramat une semaine te déggante wuñ ñoom ñett muy Modou Lo muy astafurla booy Niang Ama Baldé ak Eumeu Sène dañuy déggante toujours chaque jour ngeen dégg ma lay wax ne man ñeewuma ñëw ci Boy Niang di ko wax lenn ci Ama wóorul dañuy déggante chaque jour mais Ange mais kon yéen la ñuy jaxas ah loo ci gis man ñi ma doon saaga ay Gambien lañ. <laughs> mais mais mais lan saaga ay Gambien mais lan moo tax. Ah, mais les vrais Pikinois ñoom xam nañu kenn ku nekk da ngay liggéey. mais mais mais Père Bourkhane Père Bourkhane feneen fi ma bëgg a dugg. man foo koy laaj balaa ngaa jàll rek. Ah. lan moo leen may possibilité. ngeen dem jël rek Reug te li ngeen doon suur ci seen digganteeg Reug Reug hmm. moo nekk seen digganteeg. Siteu. Siteu hmm, déedéet. waaw ah, ci mbokk. ah mais ñoom Siteu kat ak mbokk la rek. non non non. nee na yaayu yaayu yaayu booy ah mais da ngeen doon du ngeen bëri si lan moo leen xañ wax lan moo leen xañ Siteu te ngeen dem bëri jéeg rek rek. non dama ne. waaw Siteu dañ laa wax lu tax. Siteu la moo tax. yaa ngi département de Pikine la dëkk mbokk la rek parce que dëkkandoo bu yàgg mbokk la. tey jii su su combat Siteu Boy Niang bu taxawoon ñaari kër yi dootuñu wax. ñaari kër yéen kër maamu Boy Niang ak kër waa kër Siteu. man daal ci nag Siteu ah. ci boppam. Boy Niang day bëri bu jël ay super. mais non mais ah, jël ay billets yóbbu nit ñi. ñu dem ñu dem seetaan ko waaw mbokk mu la ma ma mbokk googu. waaw moo gën a dëgër mbokk gi dox diggante mu. Modou Lo ak Siteu. non loolu moom sama yoon newu ci. ah non sa yoon dañoo war a ci a eh, xool. man ah. ñu gàntal ko xale bi cent millions. Ah. cent millions ci kër. ma ñu mun koo gàntal benn xale. waaw ngir dëkkandoo bu yàgg. ah mais sport lañu wax. man dama cee ah, euh, eh, am lamb ji sport la. parce que xam nga eh, ñoom day faral. Siteu ak Modou Lo dama cee ànd man. xam nga déedéet âge. âge Siteu ak Modou Lo dama cee ànd laa ma lu tax Babacar laa bëgg ñu wax te ba kaay il ñu. Siteu laa wax ak eh, baaxum baaxum yëpp. bu loolu mais Siteu dama ne man Siteu ak Modou Lo dama cee d'accord. kon léegi la moo tax d'accord ci combat bi. mais d'accord loolu ma jaar déedéet lu tax mais ñoom du d'accord nañoo bëri. waaw léegi Siteu nee moom bëriwul ak Boy Niang. lu tax ngeen bëgg ko ngeen. mais Boy Niang nangu woon naa bëri Siteu. moo la ko ah mais a nañ information. waaw waaw bu baax jot non non waaw non Père Bourkhane wuy ma. loolu du wax am na Père Bourkhane man jot naa ay eh, jot naa ay promoteur eh, wuy ma si te moo di ko déglu ci télé yeeg. si ta wax waaye ba léegi di ko wax si ta si ta wax waaye di ko kaaw boo ñaaw baaxul lan moo tax si ne woo diggante Reug Reug ak Ama Baldé bi nuy wax ne taxaw na da nga yëgul wala lan Siteu ak Ama Baldé. non Ama Baldé ak. ah, ah man de. waaw actuellement nii nii nii. waaw <clears throat> ki nga xam ne ki moom laay signé. waaw heure bu ne si signé ma sama combat diw ak diw. duma ci xaar ma sàmm du ma ci xaar ma dem heure bu ma jotee ndigal rek ne ma demal si signé ma ko ma signé ko. maa ci jot. mais pourquoi information bi ñu ne ñaar ñooñu combat bi taxaw na. ba officialisé loolu nag wax dëgg yàlla comme dara waxee rajo la ak waxi kii boobu. <laughs> mënoo cee. waxi rajo la mooy lan. ah si. non non non non non. Eh, taxawal ma pare waaye tam taxawal. yëg na ko de. taxawal paala yow yëg nga ni paala si ñenn. barki Cheikhul Khadim ci suñu panel bi laa gis. si. panel bii laa gis nii recours menacé laa gis. waaw yow Matar yëg nga ko. non dinañ ko ñun ñu ko gis yëpp loolu lañ ko gisee. mais ci seen biir kenn wu ko. déedéet panel bi rek man boo gisuma ñu ko mën a. lii la waat moo ko dugal ci biir panel bi te si te kii Boucher. waaw ah. moo ñëw di wax ne voilà li waa Pikine Pikine tasati na. yaa ngi dégg lañ doon wax am na diggante bii taxawal nañ ko. kon net bi netul kon net bi netul. netul netul. mais ah, léegi moom bi mu koy yëgee réaction sa réaction automatique ah, la loolu non di xa déglu sama mbër rek. déedéet doo jël sa téléphone nga woo. non ah déedéet non ma koy woo. ah du ko léegi bu la Ama Baldé wooyu suba noonu dama nga si jël ma contrat bi nag. waaw kay foofa la wax di neexee nag. foofa la wax di neexee ah. bu boobaa su ma ko defee pare nga woo ma ne mayul tax nga signé. wala loo dem ba ci kaw loolu. est-ce que tamit amuñu nekk ci biir lamb ji tamit di jaxase. ngeen ñu bëgg a yóbbu di yàq foofu duñ fa dem en ah, baaxu est-ce que amul ñu nekk ci lamb ji aussi baaxu bi yaa ñu nekk ci lamb ji aussi di yàq. parce que bu dawalee information comme quoi. Hmm. rëg-rëg booy rëg-rëg euh, Ama Baldé taxaw na te dara amu ci. loolu est-ce que Pikine lan bëgg a non xam nga man dëkk bi ñu wax ne yéen. mbër bi joxe na avalam de. man daal mënuma ma eh, taar. ne dara am na ci. waaw mu yeggale. parce kon su ma nee dara amu fa damay wax lu ma neex. Ah, am na ménage bu signé. waaw Paa la. ah dem na ba signé. ah signé na yow loolu jën yëngoo. mais yéen kat yéen nag yéen nag da di wax lii ba pare yàgg ngeen. waxaat ah? sunu sunu panel lañ ko gisee. <laughs> mais pas la semaine. si ngeen jot nga information bi. si sama pan kii laa ko jote ñii ñëpp da ngeen ni bi netul. déedéet. non non panel lu. association groupe manati euh, groupement mais mais man man je ko kenn waxaale wul jot na noo wax ak ak euh, ah, man je peux comprendre euh, peut-être de. de Bakhoum. de Bakhoum ou de Albourakh. de Bakhoum xam nga lu tax. xam nga mbër bi dañ koy tere. mu am contrat di signer contrat waaw te Ama il est sous contrat mhm. rëg-rëg n'était pas avec ah. Alburax non waaw avec Alburax donc su fekkee ne Alburax moo koy engagé peut-être foofu c'est moins de problème foofu moom donc amul problème normalement mhm. amul problème ñoom non voilà donc donc ça veut dire que bëgguñu ko woon. bëgguñu ko woon officialisé li ñu bëggoon. mooy ne ba ca kanam. yaa ngi dégg ñu génne ko. ba nii mën a sini. waaw xam nga xam nga béykat dafa am wax kii day wax yéen yëg ngeen yëpp ah. day wax ci réglementation. Mhm. tey combat bu ñu régularisé ak combat bu ñu. kan ma ne. boo ñaan numéro 2. ban combat. <laughs> Eh, ñu koy doxal ba lu ma waxul bi rek yow mun a wax. mais nga tey jii li problème information yi koy yëg. mais a ngi wax ma. waaw dama ne. nga toog jaaxle. man jaaxle ma de. man mbir mi xool ah, na kay. kon signature am na. man Paa la signé kii signé ko. en tout cas. kon combat mënut a xamal. Ama Baldé Ama Baldé mi dégg. maa ko kii kii daa woo ah, Ama Balde. waaw man maa ah, la Ama Balde ñun dara eh, <laughs> woo ñu nag woo. waa Paa pour xaaral ko benn nga woo nga ko mais woo woo ko. Ah, eh non non non non non woo na ah non non non non non ah ci ngir yow lan la la wax. dama ne sa mbër. Ama Balde Ama wax kii. non lan la la Ama Balde wax laa wax. Ama Balde lan la wax. man li sa problème man maa koy laaj mais nag. maa ko Ama Balde mi ngi suivre. dama ne waxal la la Ama wax. yow li may wax Ama Balde wax ma ci Boy Niang mi nga yor. man moom mu non man loo may wax ci ba ci ci Boy Niang ñu ngi koy doxal deuxième loolu taxawul li taxaw mooy loo xam maa ko wax. ci Boy Niang. lu ma waxul amul. mais mais man man man man man man man man man man man man promoteur yaa ngi may dégg mais combat Reug bi boo ñaan mu avié de muy muy bëgg combat bi de mais ñu ànd ak muy Alboura di Gaston production combat Reug Reug bi combat Reug Reug wu ne bëgg na combat bi waaw boo ñaan moo bëgg combat bi eh, man dafa am lu may laaj laaj posé naa question mais dafa mel ni gars yi déglu leen ma est-ce que dafa war a yàq làmb ñu bokk benn suñu dëkk ku nekk am combat ak sa adversaire warul yàqu mm. est-ce que loolu war na yàq la warul yàq dara ah mm. ba mu ah, ah, Zal ayca barke Rasulullah warul yàq naan lu sedd ñëwaat naan ah, ayca man la tàngay naan Zal est-ce que loolu war na yàq la Boy ñaa war a bëreeg Modou Lo Ama war a bëreeg Modou Lo wala Boy Niang war a bëreeg Reug Reug Ama war a est-ce que loolu sportivement est-ce que war na ko yàq xam nga diggante Ama Baldé ak euh, Boy Niang ñoom ñaar dañoo nekk ñaari mbër yoo xam ne dañoo débuté ndoo fi nga xam ne mooy département Pikine hmm. am benn combat bu fi jaaroon muy combat royal bu ñu bëree ñoom ñaar mu am ay coow yu ci am. combat wu lu ci coow yooyu laay laaj. war nañ am waaw moom laa ñëw warul am mais su fekkee ne dañ koo def jigu leen moo am ay coow pour man waruñ ko répété waat. yow laa ndal de. Zal mii man loolu laa gis. Mhm. man Pikine laa dëkk nee ma dëkkoo Pikine. yow yow bu la fàttali ah non yéen ñaar ànd ñu ah ñoo ànd ñu ah. ah. ay ca base yi waay waay waay mu wax ma loolu. ay jàmbur rek ay joxal ko beneen rajo mu naan. ay ca zaar avant coow di am avant di am. bi bi bi nga xamante ni Reug Reug kii dëggal kii Ama Baldé mooy bëreeg Modou Lo. Modou Lo ñu ne booy ñaaree taxaw ma ne ko billaahi wallaahi combat duñ am lu leen neex. ñaari combat yi. parce que mu loolu tax mu jël combat daa bëgg a jaxase pour mën a am ndam. parce que xam na ne su booy ñaar euh, kii. Euh, et def ci communication bu garaaw. bu ga ni ni daan Ama moo gën a yomb daan. gis nga Ama Balde su fekkoon ne Boy Niang dafa ñëw jàppale euh, ja Boy Niang dafa ñëwoon jàppale Ama Balde contre Modou Lo. Modou Lo suy daan suy daan du leen daan ñoom ñaar mën na ci daan kenn mais mu leen tegale. ñoom looloo tax sa écrit demul. waaw mën na nag. Matar Matar non bàyyi Matar ma wax ma ne musuma daal Matar ma am na droit nag mooy eh, kii ginnaaw raay la dëkk am na droit wax ci Pikine. Ah, waaw ginnaaw raay la dëkk kenn ëpp lu ko ginnaaw raay. loolu war na yàq. ah, ah tamit eh, bàyyi Matar. non bu fekkee comme ni ñu mujjee wax nii. Mm-hmm. su fekkee boo ñaar dafa jël rek ama jël rek. Mm-hmm. fii amul problème. problème mais bële contexte yi la nag. ndax. waaw des arènes. comme kii mu wax tamit. mais benn la benn la rek. combat ah, combat ki ñu jël xale la te daam communication bu tàng jël mu ne ci moom. waa léegi sax waaw baale gu may gërëm. Eh, eh, nag ah, ah, lii bu ma rëccee du ma ko wax. bàyyi baal loolal bañ di ndaxante. bàyyi baal bu fekkente eh, Matar xaar su fekkente ne. waaw xaaral di nga di nga may ko mu yegale. bu ko waaw comprendre non non may ma tuuti su su fekkee dañ ko teg ci cadre sport laa wax de. Ah, sport. lamb di sunu gagne-pain. non mais père déglu ma rek tuuti après su ma kiiwee nga ñëw indi sa opinion. dama ne suñ ko tegee ci cadre sport waru indi problème. Mm. waaw benn. ñaareel bi mooy làmb sport business la kii làmb gagne-pain am la Ama Baldé. Uh-huh. Boy Niang lamb gagne-pain am la. ñoom ñaar peut-être mën nañ bañ a am benn problème mais dafa am benn terme bu ñu utiliser. Mm-hmm. mooy bi nga ñëwee ci lamb. li nga jëkk a wax mooy man direct Pikine moo ne ci man mhm. Pikine laay représenté mhm. def loolu ci bopp ci ci bopp Pikinois yi mhm. ñu organiser def cent pour cent woote cent pour cent Pikine bu dee cent pour cent Pikine bi dëgg la ñoom ñaar waruñu jëlandoo benn combat boo xamante ni combat royal la man de loolu laa wax comprendre nga yow da ngay dem pour bëri ji titre roi des arènes yóbbu woo ko ci écrit bi de écrit bi taxul ngay bëri titre roi de arènes mais Pikine nga bëgg a indi titre roi de arènes comme ni ko mut loo defee tey ji mbër bu nekk ci gox goxaat li nga soxla mooy jël tiit roi des arènes bi yóbbul ko sa gox comme ni ko Mike Tyson defee ah comme ni ko Eumeu seen defee tey ji Boy Niang loolu la bëggoon amaa Baldé loolu la bëggoon léegi nag ñi nekk ci ginnaa booy seen background yi ñooñu ñooy dugal ci xelu booy loo xamante ni moom mooy indi problème mais pour man mën na du ñun ah non yéen ci ngeen bokk kay lan lañ ci bokkee non non su su doon yéen du am problème su doon ñoom du am ah. ah, la PPK euh, bu ñu naxante waaw xam nga boo déggee man ñaari combat yi bokkul fi doolu boo ñaa rëg rëg ama yëpp mën nañu bëri problème am du am doo dégg coow eh. mais bëlee non contexte yi bokkul waaw ko mu eggale combat royal lañ bëggee la ñuy bëree mbër ban mbër ngay dégg micro mbër bu am jom laa wax de yaaw jaam mi sax boo ko laajoon li mu gën a bëgg ci làmb doonte mënu ko kon boo ñaa tey su combat Ama a bëri mhm. boo ñaa jël combat ak Modou Lo ah man de boo ñaa wala may baayam wala may wala may nijaay wala may nangam du ma yéene Ama Baldé daan Modou Lo ndax fa laa jëlee roi damay toog di xaraat damay nàmpe mhm. nañu wax dëgg rek. dëgg la dëgg la. loolu moo nekk donc loolu. benn point rek laa lay jox ci làmb. bon léegi léegi père Bécaye benn rek laa lay jox ci réew am na de. père léegi dina ñëwaat. père benn point rek laa lay jox réew am na de. roi des arènes te loolu yéen dégg ngeen ko sama. nga lan nga lan lan waaw dégg bi mu bi Boy Niang di bëre ji. ak Modou Lo. waaw donc ah, bi muy jël bi muy jël avance bi. lu mu doon xam nga boobu amaa moo war a bëri ba pare. ñun dañoo jàpp ni dañ ci am cachet boo xam ni. tey na xel. waaw mais may leen. père Bécaye xam nga tamit benn point nga def bu fekkee dañuy invité ba pare non mais père bu. ah non da ngay déglu rek ma wax man lan ma wax la. dama ne bi ñuy jël avance bi. waaw booba Ama Balde moo war a bëri roi des arènes. waaw yéen dégg ngeen sama communication ma ne. Ah. daan Balla Gaye moo nu dàqal roi des arènes. yaa ngi dégg. avant combat bi di taxaw. ah non non non xaaral rek xaaral ma wax la. mais pour xan il est intelligent. bu bu bu bu Bécaye. mais pour xan yow dama ko li ma naqari ci émission bi mooy ñëwul tey. ma ñëwul. ndax na lu ko naqari loo xam ne mënut ko wax. waaw mënut ko mu ñëwul. Bakhoum mu ngi sóoraale lu bari ndeysaan. lu ku baax la Bakhoum ku baax la li tax ma lay man boobu bi ñu demee dama ne bëri daan Balla moo dàq roi des arènes. dan daan Modou ko gën waaw waaw déglu rek. waaw Lo ko gënaloon waaye ah. dama ne daan Modou Lo ko gënaloon. moo waroon njëkk a bëri ba pare. déglu leen waay moo bëree woon.